dem nañ ci jàmm alhamdulilah dellusi ci jàmm alhamdulilah waaye taxut aj bi déroulé ci jàmm jafe-jafe yi bëri na jafe-jafe yi mi ngi tàmbalee ci mbirum aviation avion yi nga xam ni moom la ñuy jël pour dem yóbbu ujaat yi Arabie Saoudite ñu def seen aj ñu ñëwaat ak ñoom bi ñu ci gën a sonal wax dëgg mooy bi nga xam ne dañu ko imposer mooy Flynas boobu contrat yi ñu ko signe ñun ñi ci nekk di te ëpp ci ujaaj xamuñu ko ñuy xayma ni yeneen compagnie yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci senegal di li ñuy wax compagnie régulière njëg bi ñuy jaayee billets yi boo ko méngalee ak njëg bi nga xam ne moom lañu ñu Flynas bi ñu imposé di jaayee billets yi seen différence mot na quatre cent mille kon metti na ci ñun bi ci topp mooy yan condition la ñu signé contrat ak Flynas rende bi ñu kaasee ne njëg bi cher na ci lañ ñu xamal ne déet li tax mu cher mooy dañ leen ci booleel ay valise dinañ leen andil zam-zam te yàlla dogal na ni ba tey bëri na ñoo xam ne du ma ne ñëpp waaye bëri na ñoo xam ne jotaguñu valise ujaaj yi njëkk a jóge Arabie Saoudite yegg si ci kenn ku ci am zamzam zam te ujaaj bu dem makka ñëw te amul zamzam zam loolu problème la beneen bi ci top moy amna ay taxes yu ñuy faylo fi benn bi muy mbiru garantie bancaire dem nañ sax ba ne dañ koy fay à hauteur de 15 muy loo xam ne amut fenn ci administration xam nañu laajte nañu gis nañu ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu woowu garanti diggante ak cinq pour cent rek la waaye yooyu ñu nangu ndax bëgg liggéey bi jëm kanam muy alal ju takku nag bu ñuy teq ci ñun bi ci topp mooy am na loo xam ne dañ ñu koy fayloo ñaari yoon ndax balaa ñoo am visa pour yóbbu ujaaj faw am ay taxes yoo xam ne nguuru Arabie Saoudite moo la koy teg ci taxe boobu lañuy ñuy génnee la nga xam ne moom ngay fay sa tente moom ngay fay Arafat moom ngay fay sa transport ak yeneen waaye gis nañ ni loolu fay nañ ko ba pare waaye ñu ñu koy fayloo waat muy double emploi li wolof di wax double emploi te loolu lépp buñ ñu ko fayloowee dañ koy teg ci kaw ujaa ci rek muy gën a métti looloo waral aju Sénégal cher na te war na mën a gën a yomb bi ci topp nekk mbiru IATA arabi Arabie niñ ko xamee dafa taxaw ci ubbi ay buntam dafa am objectif bu mu am jëm ci deux li mu bëgg mooy dina am lu toll ci téeméeri million ci ay nit yuy dugg ci Arabie Saoudite lu jëm ci aj bi seen buur bi moo ko yor bépp décision bu muy joxe.

privé yépp n'ak, yépp association yi nga xamni ñom ñoy privé ci mbiru aj yépp a ngi fi tok ñu dajaloo waxtaan out solution waye yemuñ ci dañuy ñaan dimbal ci gouvernement bi ñaan dimbal ci ministre des affaires étrangères monsieur Amadou Ba di ñaan dimbal ci son excellence monsieur Macky Sall ñu ñëw jàppale parce que sonn nañu parce que aj bi bëri na jafé jafé te fi mu nekk nii ñun ay ambassadeur lañu bëgg continuer di rafetal turu Sénégal ca kaw ca kanam